jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci Lutte TV ak wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen jëfal leen bu baax a baax ñu ngi fii nag ci aéroport Blaise Diagne di fi teeru gan boo xamante ni ki ko tëgg mooy Big Pato Event journée bu mag ñu jëm ko ci dimanche wala boog ci le treize bi ñu jëm fale ci arène nationale mu nekk bis boo xamante ni vraiment bu jëlee nasaraan jëlee ko bitim réew. indi ko mu fas yéene ñëw bëri si fii Sénégal mooy wane ni làmb Sénégal mu ngi dox làmb Sénégal mu ngi wane waat boppam waaye ñu ngi koy gën a jaay euh, suñu papa Xaadim père Xaadim père Xaadim est-ce que est ñëw rek sama papa Xaadim Ndiaye ngi nii vraiment mu nekk koo xamante ne kenn du ko présenté ci làmb père Xaadim. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey ñu fekk la fii ci aéroport bi muy bërëb bi nga xamante ni fi ngay yëngoo. tey tey tey làmb dem ba Big Pato jëlee tubaab nasaraan. mu jëlee ko bitim réew indi ko Sénégal mu war a fas yéene bëre si boo ko yëgee en tant que lutteur ban yëgee nga ci am. waaw lamb mi ngi yokku rek. waaw ginaaw yàlla dañuy damay remercier sama patron bay Sarr Sénégal Tour. di nuyu directeur aéroport bi muy Doudou Ka. mooy borom Casamance. Euh, tey lamb dafa yokk rek mais Big Pato li mu def. ku ku yokkul da ngaa wàññi te Big Pato dafa yokk. bu demee ba jëlee bitim réew. ab tubaab mu ñëw fii ci Sénégal pour bëgg a bëreeg ñun. kon xam ne ñun nit ñi tubaab yi ñu ngi koy bëggee ñëw fii senegal di bëre kon xale yi bu ñu yàq bëre bi nañ teelu te xam ne lamb dina dem ba fayoo ko ay milliards tax lépp ci cadre sport la rek mm. tey lii wane na ko ab tubaab ngeen di teeru nii tey ñu ngi fii ci Léopold pour mu ñëw ñu ngi fii ci AIDB pour tubaab bi ñëw inter ñu ngeen jël si ko pour mu ñëw bëreeg sénégalais kon yàlla nañu yàlla bi ko daal mention spéciale quoi merci. mais tubaab buñ koy jël si mu yor ay xarfa xuufa gis naa fi ay gàllaaj yoo xamante ne ñi war a accompagner tubaab bi ñoo ko fas yéene yor gàllaaj yooyu lan la lan la ci tubaab bi. tubaab bi non dama gis ni ay ay sénégalais nag ñoo ko jël si. te sénégalais xam nañu réalité bi. Mm. tey tubaab bu ñëw ci buntu ci aéroport. ñu koy sotti ay galaaj di ko jox ay galaaj mu takk mm. kon nga xam ne daal tubaab bi daal ñoo ñu gën a fonk suñu suñu suñu aada léegi quoi mm. mais loolu lépp ak yokkute la rek suñu sénégalais yi def enema tamit mm. bu fàttali tamit bu ñuy dem enema dañ dul takk galaaj mais dañuy sangu mm-hmm. dañuy takk ji fexee xam sax seen adversaire takk ko mm-hmm. xëy na dafa dul sotti rek ñoom takk lañ dul jàpp bu fekkoon takk day jàpp kon africains yi ñoo jël coupe du monde ñoo jël lépp luñ fi teg ndax bu dee sëriñ rek. ñoo ko gën a gëm ñeneen ñi. Mm. xëy na ñeneen ay fétiche dañuy def bu bon bi. Mm. mais li ñuy wax rek mooy lii daal lamb mi ngi yokk daal. Mm. buñ demee ba tey Sénégal ab tubaab di jóge bitim réew ñu di ko jël fii ci ay aéroport bi. ah franchement daal li ma mën a wax. mooy daal Big Pato. tey jekk na pàccot bi la nu koy jàppoot bi lañ koy wax ma mais. tebbi na jàppoot bi quoi te Big Pato nag bokk ci lamb mais lii daal dinaa xool nag tubaab bii ndax dina bokk ak tubaab bi fi nekkoon. xuwaan mm. dinaa xool ndax li fi xuwaan nekk li fi xuwaan doon def loolu lay def wala déet. Mm. ñu ngi koy dalal di ko ñaanal mu dal seek jàmm. Mm. a ah, maa ngi ñaanal rek sama mbokk sénégalais bi am ndam. merci am na solo. Ndeysaan mbokk yi ñu ngi nii ci aéroport bi gis ngeen gan boobu nga xamante ni euh, mooy Big Pato numéro de yegg si na am na lu ñu koy jox am ay ndeysaan ah laa sada laa sa génne laa <laughs> sada am lu koy jox ndeysaan ba ngay wis laa <laughs> ilaaha illallah ba ngay wis tubaab bi ba ngay wis kii xam nga laa <laughs> ilaaha illallah ba ngay wis allah sala am na lu ko jox am na butéel bu ko jox bu wis am na butéel bum ko jox bu wis laasana génne wàlla beneen butéel laay <laughs> laay la ay làmb gi waay ndeysaan laasana jox na ko waay laasana jox na ko nee raayil raay la ci loxo yi <laughs> raay waat na <laughs> raay waat na ndeysaan ay sama ci kanam gi laa ilaaha illallaah ay làmba gi waay ndeysaan ma ngay wis ma ngay wis xorom la yor ma ngay wis ah <laughs> ma ngay wis ma ngay wis ma ngay wis laa ilaaha ma nga loolu di wis ma ngay wis ndeysaan nee na du yomb ndeysaan segoor ba laasana am na lu muy génnee Ah, nee na nga téyel ko mu ne la du yomb. du yomb jàmbo. Diambo Diambo. Diambo Diambo. déedéet du daan de loo waxoon déedéet yaa di woon déedéet. déedéet déedéet. déedéet. doo ko may dara. déedéet dara ne ko dara. dalaay. doo ko may dara déedéet. daan rek ne ko daan rek daan rek. daan rek. Diambo. laay sagar yaa ngi du yomb. doo ko may dara bu dee déedéet. doo ko may dara bu dee laasana kay kafut fawut falu. ah. laa ilaaha illallah. laa ilaaha takk ci tànk ba. ah waaw ji mën naa. laa takk ci tànk bi. laa sana de moo yor débat débi. ah waaw rek man promoteur laa amoo droit. laa sana la ne. léegi bii tànk bi. bi la ko yëkkati. ah waay tubaab ay ko takkee. et eh, le 12 arène nationale <laughs> da ngeen xam lu xew le 12. ndeysaan ma nga noonu. ndeysaan. kawas ma ngay sol. du sol kawas. ah c'est bon c'est bon c'est bon. c'est bon ndeysaan <laughs> ndeysaan eh, ma ngay génne beneen fu mu koy takk ci ndiggale. <laughs> waaye li waaye li yëg ni laa sonn waaye ay laa sonn ay laa bëgg cumukaay ne ko ne ko bii ah, bii ak bii ah. su nelawee ba ah. dem làmb ji mu tàggaat tomorrow if you wake up you can make out and uh, the day of the match you fight you will take one if you go, to home. You go to bed with yeah. no, problem. And tomorrow, if you wake up, you just want to make out and you take some place. The day of the fight, you can make it on your body. Okay. You understand? Should I take it out now tomorrow? You know what I want to understand. Yeah. Na nga def. Na nga def. Yaa ngi fi. Yaa ngi fi. Cool. <laughs> Eh. Eh, ne ko tous. ne ko acca mbër. acca mbër. ne ko acca mbër. acca mbër. Sénégal. Sénégal. Exina. Exina. maa ngi nii. maa ngi nii. man la Big Pato numéro 2. man la Big Pato 2. Hmm. Okay. Well, Leke, for now, he want to ask you some question why you are sure. in Senegal and why you are. Sure. Can we put the question here? Euh, léegi dama ko bëggoon laaj. Big Pato bi mu ñëwee Sénégal. Ah. ñëw gis culture Sénégal ni mu mel. Ah. lan moo ko dugal ci mu am xalaatu ñëw Sénégal ne day bëri. Uh, he just want to ask you why you think to come to Sénégal here to make the Sénégal wrestler because Sénégal wrestler is a national culture and why you think to just come to Sénégal to do the Sénégal lamb the wrestler. Uh, first of all, I want to thank you for the warm welcome of me coming here, yeah. and I've selected Senegal mm -hmm. to to visit and and to really. um, study the, the, the, the, combat sport, the luta vec frap, yeah. and the Senegalese spirit, and really want to to see and learn of you guys. dégg nga na moom kontaan na pour ñëw Sénégal parce que boo gisee mu soo senegal Sénégal ñëw fi dafa gis làmbu muy su luta vec frap mu seetaan ko mu xam ni lu ko neex la te jaroon na ko mu ñëw fii Sénégal pour def ko moo tax mu waral mu ñëw Sénégal fii. bi mu ñëwee dañ ko gis ñu jox ko mystique mais moom dafa mel ni wàllu mystique bi moom sax daf ko farataal. lan la ci xam ci wàllu mystique ba faral. because he see he see you you are like you like uh, the Senegalese mystic and why you think uh, you think is for, for the wrestling uh, what do you think about. I think that every fight. Mm -hmm. in the ring or in life. Mm -hmm. a lot of it happens not in the physical world but in the energy in wherever and I think that the Senegalese culture really harnesses that power and really. that is what people connect and really unites. nee na day seetlu bu gars di def ci làmb ji nii day mel loo am doole mystique bi am na ci solo lool. te gis na ni gars gis ponkal moom day ñëw benn waaye daan ko moo am na solo ci dund gi. moom mu boole ko ci parce que xam ne làmb am mystique ñoo ànd. kon làmb ji daal kii daal daf ñoo jàng jàngat ba mokkal ñu doog fee ñëw li loolu daal mokkal nañu doog a ñëw kii daal man jaaxal na ma bi Pado 2 mii ku sob la man ba moo njëkkee contacté laa xam ni kii ku sob parce que damaa wax ci man loo xam ne man sa bàyyi xel kon kii ku sob ku soba nii mais nag dañuy sant yàlla baax di gërëm suñu autorités yi surtout waa présidence di gërëm ministre de l'intérieur ak directeur général de la police ak waa aéroport accueil bi ñu defaral di wax lii mooy Sénégal ay jeunes Sénégal lañ dañoo war di jaay suñu dëkk defar suñu image tey kii bu demee dëkkam dañu xam Sénégal la demoon di profiter aussi di Thank you. And what do you think about about Senegalese people? Oh, the, the welcome and the, and the heart is, is unbelievable. I feel right at home. I, I know there's a big challenge waiting for me next week, <laughs> but I know I got you to support me. <laughs> And you, teach me some tricks. na fi peuple bu bu bu chaleureux bu accueillant bi nga xam ne ko accueillir moom gis na mbégte gis na ni ñu ko dalalee. te kontaan na ci te actuellement c' est incroyable pour lui par rapport ak te nee na li challenge la si moom pour next week mu ñëw jël bi gañ ko. te li wax ni li ma gën a neex nag moom bi mu ñëwee sama ndox mi la njëkk a naan si njab yi te neex ma si njaloo wax. what do you think baax na. baax dafa baax neex na neex na neex kon gars yi ñu ngi nii waa Lutte TV di wax ni tubaab bi egg na ci jàmm li ci des nag da ngeen koy kat ci kat appui Lutte TV ak Wassare ñoo yow exclusif di wax ni làmb ji la douze la ku bëgg a xam li ci xew toppal ji wala nga topp di wax ni naa booy na nga ñaanal tubaab bi Anta ñaanal tubaab bi. di <laughs> neem si ji li. booy ah, bu saytaane ne ko booy bu saytaane. donc booy. ne ko ji li saytaane. ne ko ji li saytaane. waaw waaw. merci mon frère. ñoo koy préparé. école de la école école de école laas la a ba ñoo koy préparé entraîné la nga dem daan Pape Diouf. Pape Diouf c'est toi qui a qui va gagner. yaa gagné incha allah waaw. yu ma la jox. li ma la jox nag xam naa xamoo ko. mais ay bagages la. he give you something you don't know but. yes he just want to explain you. you want to win the fight. And you want to be power and powerful because he gives you big arm and to make you powerful. And you, if you use this thing, you will win the fight. No problem. Programme bi lundi nañ dem yéeg gradé yi. gradé yi gradé waaw gradé yi. dinañ dinañ def programme boo xam ne lundi nañ dem gradé dem euh, monument renaissance. suñ fa jugee nga noppalu. mardi ñu yóbbu la salle nga contact bëri gars yi wan leen sa salañ salañ Pape Diouf dina xam ne lépp dëgg la. Ah, wow, you want to understand, he want to make rock plane for you. Yeah. Monday morning, you want to go for the to training. This, uh, this place, uh, Monimata Ramsan, to make some mm-hmm. training. Yeah. And Tuesday, we go in a gymnasium, it's training, Senegal wrestler. And uh, for the week, we have one best plane for you, <laughs> and you can make some. My best minute, my original. You survive. parce que ma xool indi dafa naan ma xool lu mu indi xaaral ma xool ba tànk lay tax damay xool ba tànk lay tax aja ñëwal ma xool ba tànk lay tax waaw léegi góor soo teg de yow kii. mbaa du doy ñëw. ah mais ah. am ngeen problème de. am ngeen problème